Euh, maanaam dese maanaam vingt vingt minutes mooy dese li nga xamante moo ñu waxtaan balaa ñu dugg ci ci deuxième troisième chapitre bi di wàllum basketball voilà président saison bi jeex na léegi est-ce que mën nañ jàpp date bi nga xamante moom la ñu mooy saison deux mille vingt vingt quatre waaw war nañ mën a jàpp date bi mais sous peu. ce qui est sûr c'est là dans le mois d'octobre on va démarrer très d'octobre waaw ah, on va on parce que d'abord nous ne voulons pas toog lu yàgg. du ñu joué donc dañu teel pare mois de bu bëgg toog août. toog septembre toog octobre muy trois mois c'est trop bu ñuy toog maximum. deux mois waaw deux mois mag deux mois yi sa bari na. mais toujours dañuy dañuy wàññi quoi. donc mois d'octobre vraiment il faut qu'on le que l'on il faut savoir que championnat là c'est un championnat à 16. Mhm. ah waaw c'est plus 14. Mhm. c'est vrai qu'il y a pas de il y a pas de coupe d'Afrique. Mhm. mais il y a les éliminatoires de la coupe du monde et tout ça. donc teel teel démarrer donc au mois d'octobre je crois mais nag la date de démarrage il faut qu'on discute en bureau te comme que defaguñu le bilan la saison du ko mën a annoncer fii quoi mais ce qui mooy les équipes au de septembre nañu ko mën a mën commencer seen travail hivernal sànq wax nga gàkk-gàkk yi nga xamante moo am ci saison bi wax nga ci violence bi am na ci biti parce que le doyen sax maanaam jot nañoo maanaam Général Mousset beaucoup de voitures. mais mooy mooy benn benn euh, d'accord xeex ngeen ko si biir si biir mais tamit war ngeen ko xeex si biti. waaw waaw mais xam nga Babous yaa ngi social. Hmm. yéen li ngeen bëgg da ngeen di bëgg léegi nit ñi yar leen war a yar seen kër ñu yar leen ko ci mbedd bi. mu ah, amul fenn mënul nekk. maintenant nag dinañ jëm li ñu mën on donne l'exemple on donne même l'exemple aux politiques daaw doy exemple politique ba nekk ba indi fi un manko. ba mën développer le football ba édifier coupe d' Afrique. Oh, tey on doit donner l' exemple sur beaucoup de choses nous on est nekk ay cobayes mën nañu nekk ay pionniers sur beaucoup de choses tey aujourd'hui on est en train de travailler sur la mentalité des Sénégalais moi aujourd'hui Djiby plus de cent ans saa yi ma yeewoo tuur ndox su ma tuur leen ndox sama jabar ne ma tuuroo ndox. Mm-hmm. tey ma bëgg la teree yow tuur ndox. xam nga dina metti d' il faut ma def man sama liggéey man sama introspection bopp def ko sama dënn ba pare après doog la ko mën a imposer mais man su ma ko gëmul mënu la ko mën a imposer donc c' est un travail donc cette pratique économique là on est de de se battre mu génn dans le sport te incha allah ñu koy réussir ndànk-ndànk violence bi aussi bi nga xam ne ci kër la nekk xale yi tey nii mel xale yi dem mel ñu ko woon il ñu xool fan lañ koy jàppee ba moom nee na léegi il faut ñuy dóor il faut ñuy dóor mais boo dóoree club bi ngay dóor président bi ngay dóor moom may fay amande bi. nga xam la donc nañ dem di wax nit ñi maintenant dans le recrutement que am aussi ñun aussi ñun aussi xam nga tey Babou Grégoire bu ñëw match am na waxaam mooy joué ak jaraaf. mu jël 5000 francs bay fa fay bien. mais du sànni mhm. mais nag su ma ko jëlee bien mu sànni <laughs> soo ko moom bu bu génnee si poche bu jëndee si poche am. 5000 fay du sànni. léegi bu ko jëndee 5000 mais su ma ko jëndalee su ma ko jëndalee bi yóbbu ko mu nekk kii rek mun na sànni xeer. waaw donc donc donc ni ñuy recruter suñu supporters yi. Mm, mm. mooy maanaam les supporters supportés organisation des communautés de supporters dañ ko xool. ah kon nga bëgg yow. voilà supporters di seen seen bopp ñi nga. xamante ne même bu ñu génnoon moyen bu rek yaay club yi bu fekkee jox moyen nga trier leen. Mm-hmm. parce que booy xamante nañ seen biir. Mm-hmm. booy équipe bu nekk am na capitaine. xoolal capitaine bi nga wax ak moom waxaat ak moom mu seetlu ñi muy choisir mais bu mu choisir ki fa gën a nekk guerrier. ki fa ñëw pour leen parce que ñuy sanctionné. donc ce travail parce que ñun ñëpp aujourd'hui les gens sont de rassembler. ils verront stade Pikine mu ngi tëgg affaire baa ngi neex Linguère mu ngi koy def Sante Mbour mu ngi koy def Casa Sport ñoom ñu ngi ci yàgg na ay foofu wax xool sax y a violence là-bas bu ñëpp doon def comme ñoom li def mais foofu ay mag la mhm. xam la dañuy foo bu leen gayee ñu foo et tout ça mais nit ñi ñu ngi leen di jéem mhm. mais boo leen jël point bu baax bi mhm. tey dafa baax aujourd'hui parce que des équipes nationales de kii de lutte sont autour de moi que da jël leen yóbbu leen que ñu pare après ñu après loolu aussi dañ ñun ñu koy développé. d' accord moo tax tout ñu wax ak ñoom léegi comité de supporters boo ko seetee bu Pikine bu wàññaatee li ñëw ñoom ñoo wax jaar leen fi jaar fi mais interaction boobu. Mm. ñun ñoo ko indi. ñu ngi liggéey ci loolu. mais nag mu mu mënul gaaw. donc ñun il faut ñu travailler ci mentalité nit ñi suñuy mentalité parce que ay jamono aussi. Mm-hmm. tollu woon nañ ci. Mm-hmm. doon nañu def ay dégâts. mais après ñu rectifier ñu bañ jaar yi nous aussi nous avons ce devoir là mais si les gens sont trop pressés du sotti du sotti du sotti Sénégal fii suñu match suñu match mm-hmm. mais euh, bu ñu teeloon dugal wala ñu mën a woon ñu ma ce que ngeen imaginer non donc avant loolu sax avant avant match bi di démarrer gars yi fa la am na am nay lacrymogène yu tàkk voilà loolu lan moo koy indi parce que ñu bari aussi dañ leen fayal billet mm. c'est ce qui la lutte mm-hmm. waaw mais c'est parce que parfois aussi dans les finales nawetaan c'est des politiques comme moi ñu jëm bee jox xale yi ñu dem développé yu ñu mm-hmm. paree yaakaar ne bu jour bi joué ñoom ñu war a gañe ñoom ci xeer yi mm-hmm. yooyu yëpp c'est un travail d'accord merci beaucoup président léegi nag rek dañuy